Lobugaz Mame Diarra Bousso mi sàmm kaaraange kiliyaan bi Jolof ci Chicken di ganaaru ëddekaay yu saf yi Promobil pis mbegte sunu moomeel ak Seneprot borom ndox Aquaterra sell te oyof ñoo leen di may seen émission Taku Show seen émission Taku Show dellu siwaat ci kattanu yàlla ak ndimbalam ñu jaajëfal nag waa rédaction bu baax ci boobule flash daal di ñëw nag fas yéen a ànd yéen ci bile magazine di Taku Show tey nag ci alxames ji dinañu ko ubbee seen rubrique kaddu mag ñi tey Omar Bun Xataab Gueye dana indi kaddu mag mu sell ñu gën ko xam ci xalifatu El Hadj maam xalifa Niass de buñ ca noppe nag daal di jàll ci pajum cosaan ànd ci ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis mu seq waxtaan ak El Hadj Sanjoogu pour terminer la partie dinañu ànd ak yéen ci kàddu ko ci ànd ci ak ma jigéen Diop bu bàkk bi jibee ñu ñëwaat. ci mi nga ñu ngi lay nuyu di la ziar Omar Bun Xataab Gueye. <laughs> ajaratu ñu ngi lay fay bu baax a baax di la di la ziar di la nuyu. di ko delloo macha allah. merci <laughs> bi baax na di ñaan rek. <laughs> Euh, euh, yàlla gën ñu may kattan ak wér gun fi mën di teewee. Mhm. loolu lépp ci ndimbalu yàlla lay amee. di sant ñëpp di Cheikh Bara tey ñu naan ko macha allah. Mhm. di ko ziar baax sañse bi defati nga ko dóor nga ko caw nga ko caw boo xam moom xaw ma kañ lay fay waaye du tey. du tey de du tey. sëñ bu yow tamit macha allah. <laughs> saa macha mu ñàkk partenaire rek. <laughs> di la di nuyu di nuyu tamit. d'accord benn xaritu Cheikh Bara Cissé Al Waccam. Mhm. ak soxnaam soxnaam la ma jox téléphone mais soxnaam xam na ñëpp Walfadjri ñi fenn télé bi yëpp xam na leen. émission yëpp xam na leen macha allah te loolu kóllëre la ak faj Walfadjri soxna Mame Diarra kon na euh, Cissé ñu ngi lay ziar baax a baax Al Waccam di nuyu waa régie ak caméraman yi di ñaan rek yàlla suñu borom bàyyi ñu ak ñi gën ci ñun. bàyyi tamit ak suñuy waajur macha allah. di nuyu ñëpp incha allah. d' accord El Hadji Cheikh Bara Ndiaye borom def gis maa ngi lay nuyu góorukat yi bàyyi sañ Sidi. waaw maa ngi lay fay soxna bi di nuyu sa El Hadji Sa Ndiogou Mbengue ak euh, bi mu wadd wala soxna katee ah, tànn. waaw soxna ah, katee kon baax na macha allah Touba ñaw. jeex na waaw di nuyu sax bu baax ak euh, soxna ma jigéen. ak mhm. euh, mboolem ñi ñuy seetaan ñëpp ci biir réew mi ak bitim réew di ñaan yàlla subhaanahu wa taala suñu kàddu fekk leen ci jàmm. allahumma amiin El Hadj sa bëla. macha allah sama bëla bi di wax ni ci ci temps laa ko teg. ma xam naa loolu. bëla bi macha allah moo tax mu laaj la ko kii la. bëla de la bëla de nuit. nuit waaw macha allah di bëla boo xam ni bëla bu am solo la yow bëla de jour. donc di wax ni bi noir de Inde. son bi bu la la sol di yeneen robe la de. waaw di wax ni ñi ngi am mbégte di dem ba Touba nuyu xarit général des Mourides Serigne Mountakha di nuyu bu baax sunu Serigne sunu xarit Serigne Sidi bu Serigne Abdoul Ahad Mbacke di nuyu sëñ Khadim Fall nekk ca kër ga di nuyu sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimul Axla mhm. di nuyu képp ku kilifa dina di yeewoo ci biir réew mi ñu ngi lay nuyu mhm. waaye ñu ngi nuyu bu baax mama Diayna ba Fall borom Guédiawaye bu baax di ko ziyaar di ko ñaanal jàmm waaye di sant di gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni kii moom la wax monsieur Lo di sunu tonton di am ci moom mhm, mbégte ak kontante di wax ni macha allah tey dina ñëw décortiquer parce que ojo yi bari na ñi envoyé di wax naan sorti Adji Sarr bi Cheikh Bara nu mu ko gisee am na ñu bari ñoo xamante ne bi ñu ngi koy laaj. Mhm. donc danañ ca ñëw. waaye aussi tamit dinañ ñëw tamit ci li nga xamante ni bii mooy marche bi opposition bi waroon def ci wàllu actualité waaye dañu jëm ci weeru koor nga xamante ni léegi mu yegg si danañ wax lu jëm ci wàllu estomac ni ngeen def ba war ko mën loolu yëpp dinañ ci ñëw incha allah rabbi ci kanam lay doon ak Cheikh Bara borom def gis ci wàllu. actualité wute lool ak ñenn ñi koy jéem te xamuñu dara ci actualité sooy bu Diop nuyu nañ ko jërëjëf merci. <laughs> dinañ ci ñëw ci kanam mais sooy bala ma lay nuyu. Ah. sooy bu dafa wax ba tudd weeru koor yi nga weeru koor lay bañ a dégg. sooy bu dafa da nga ragal xiif. waaw de xëy ku ko ñemee. <laughs> xëy bu ngoon gore rek gore gore. waaw sooy bu yow ki nga dendal Njaay la sant di teegaa teey <laughs> ak Diop teegaa sooy bu maa ngi lay di la ziar sant la baax na euh, waaw bi dégg naa dafa dafa ñëw woote conférence mm-hmm. nee ne ku woor ba ngoon boole nga ñett ñu oh, dina wax xam-xam de mu ni barkeb sëñ bi ku wóor ba ngoon boole nga ñett ñu ni ko yéen a yéen mu ni xiif nga mar nga sonn nga <laughs> xam ah, nga <laughs> maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi nuyu Sénégalais yi nga xam ne bu waxtu yu jotee ñu bàyyi seen lépp jàkkaarloog ñun ajaratu di rafetlu sañse bi amati na solo sëriñ Baara ci vert bi mm. couleuru l'islam bi macha allah jasneer bi moom jërul sax muy parfum ah, Omar bun Xataab gay jërëjëf ci balu big bi saa njógu mbee nga nag téyëram bi dafa koo defal divorce couleur ndax xam nga ni rouge ba ca biir ak bula bula bula bula kii baxa bi mënoon na cee ñàkk ba pare poos bi dafa aju xam nga poosu <laughs> poos bi <laughs> xam nga tailleur yi eh, dans les normes diggante euh, épaule ba ci fii poos bi 27 centimètres la war eh, a doon mais eh. poosam bi dafa aju bàyyi jaamur <laughs> non xam na poos bi dafa aju tailleur bi da koy wàccee tuuti waaye dégg nga te couleur yi xoolal normal ñun te couleur divorce couleur na nay marié tuuti dégg nga. waaw d'accord waaw rouge beeg baxa bi moom bu wuti woon dara daal waaye <laughs> ay ca neex na ba pare régi ngeen jox ñu tampon ñu ñëwaat. <laughs> warul xataab ay ca ñu ngi lay déglu. <laughs> yaa ngi waxtaanee Baye Sidi Lamine Niass. waaw waaja mu ji maam xalifa Niass. Mhm. doon jëm joo xam ne nag ju yéeme la. macha allah tey nag ñu fa yéene ko waxtaanee Sidi Lamine nag am yéene ju maam xalifa amoon ci jamonoom. Mhm. maanaam ay mbindam ñu dajale ko. Mhm. naka de Sidi Lamine mooy ki koy dajale te joxoñam bi dafa mel ne fu mu joxoñoon foofu la. Sidi Lamine dajale na ko ba noppi doogu fi jóge mu mel ne fa mu joxoñoon baax na kon ñu ànd ak El Hadj Sidi Lamine rek mu fàttalu ñu kan mooy maam xalifa Niass. dama wax ne xalifa jéem naa koo ut ci bindkat yi jéem naa koo ut ci wéykat yi pour bugg a xam ban catégorie la bokk ak bu ma koy moomale jël naa ci njëkk a tagg yonent bi salaay sallam bi summi mbubbam salal ko ko muy kaab xalifa nag def na loolu yépp kon xalifa lan la def lu keneen deful xalifa lan la wax lu keneen waxul xalifa lan la indi lu kaneen indul foofu la baytul xasida ne xalifa ñëwul di tagg yonent bi rek daf koo ne àddina bi dafa am soxla mooy ut kan moo mun a faj seen soxla xalifa nag dafa gane àddina ci jamono joo xam ne occident ak orient maanaam li ñu wax indo chinois yi nga xam ne dañoo am xel bañ leen di wax les Ariens tubaab yi les gréco dañoo am xel bañ leen wax le zélénite dañoo indiwoon ci xam-xamu note noce li ñu wax méthode ak organisation loo xam ne dafa yéem àddina bi yépp ñu jóg nag ñoom helléniste yooyu ak seen xel bu rëy di commencé di coloniser àddina xalifa des nag xool àddina fi mu jëm lépp war a nekk ci loxo communiste wala libéral lépp war a nekk ci loxo socialiste wala libéral lépp ñoom ñoo ko yor ñoo ko moom ñoo ci def xalifa nag di laaj ne ndax lii la ndax lii la mu gis àddina lëndëm xalifa ñes ni ñetti góom la àddina am ñetti góom ñi ne ko lan la mu ne lëndëm ak réer nit ñi dañoo jàng waaye xamuñ dañoo réer te réer bi gën a métti mooy ki jàpp ne xam na te xamul mu ne nit ñi dañoo ñàkk ki nga jàpp ne moo am kooku moo ñeewul boppam moo gën a ñàkk ñëpp ndax ñàkk dafa war nekk rek am dafa war nekk rek matériel nit matériel la ak spirituel kon am na loo xam ne su ko ñàkkee ñàkk xalifa ne nit ñi dañoo nëbb yàlla dañoo am lëndëm ak gis nga lool nëbb rek firiwul ne xamoo ne mi ngi fi waaye danga koo nangul baykat bi sax éefër dañ koy tuddee yafurul arda ndax mu ngay nëbbu mbayeef ga kon lépp loo nëbb rek bu boobaa dañuy jàpp ne yow loolu nga nëbbu dañuy jàpp ne loolu nga nëbbu mi xalifa nag ne ñetti góom yi yooyu ñoo fi nekk man nag maa ngi wut lu ko saafara man nag maa ngi wut lu faj nit ñi maa ngi wut lu faj àddina bi <laughs> mooy euh, la solution pour l'humanité moom loolu la doon euh, sàkku waxul ni rek day ñëw di tagg yonent bi waaye yonent bi doon saafara pour jafe-jafe yi askan moom mu limoon ci ñett ñett yooyu dinañ ci dellu ci kanam ak Cheikh Bara ci tënk rek di fàttali ni xalifa Mouhamed Niass la tudd moom Seydina Mouhamed lañ ko tuddee. moom turam dañ ko joxoñoon mi ngi judd 29 juillet 1979 euh, ca Selig Selig nag maa ngi nekk ca diwaanu Saloum. 1er mars 1959 euh, ca Kaolack Ndangaan la dëddu moom maam xalifa ñas tolloon ci juróom-ñetti fukki at. mu 80 ans moom nag euh, baayam di maam Abdoulaye Niass yaayam di Aminata loolu tamit ci junj ak nettalik mag ñi mooy yonent bi daa am fu mu ko nuru ginnaaw bu ñu ko tuddee yonent bi moog yonent bi ñoo bokk turu euh, waajur wu jigéen waaye te ñoo bokk turu baay parce que yonent bi Abdallah mooy baayam Aminata moom mooy yaayam maam xalifa tamit ci noonu la lii moom moo njëkk a doon premier xalifa bu maam. Euh, Euh, Abdoulaye ñas nekk juddu le premier mars kon chiffre 1 bi di ñëwaat 29 yi di ñëw 79 59 ak yeneen yoo xam ne toftalu na ci ci maam Khalifa Niass di fàttali ne Léona Niassène bi mu dëkk maam Abdoulaye Niass moo ko sos moom doonoon bàyyam la téye ba léegi parce que boo demee dina la tuddal Medina bàyyi tuddul la kii yeneenu gox yoo xam ne tey ba ñaseen waaye lew Léona Niassène moom mooy cosaan li moom nag ba jusqu'à présent moom moo njabootam ñoom ñoo fa ne tey ji sëtam bi fa ne doon xalif bi di di Cheikh Tidiane ma ñas mooy xalif général bu Léona Niassène maam Khalifa Niass nag comme li li mu junjoon ci jamono ci ay doomam Seyd Lamine Niass mottali ko di fàttali ni bisu tey bi Seyd Lamine taxawoon mi ngi nekkoon euh, ci journée culturel maam Khalifa Niass ci atum 2013 pour wax la ni rek hasard amul xamoon ni topp moom la ñuy indil jour boobu teewoon naa fa ndax daa am ku mu fa àndaloon bokk ci njaboot gi eh, tey jii ñu indiwaatal ñu jëmm jooju Seydou Lamine doon wax ci moom ci ñetti ponk yi mu indi ni woon daal yonent bi nettali ko baax na mais solution la pour l'humanité maanaam nekk na pexe pour bangi-bangi ak jafe-jafe yi jamono yonent bi ñëw doon saafara boo xam ne moom moo koy saafara mu doonoon koo xam ne ci kàddu Seydou Lamine doon kun mën a natt ndaxte maanaam personnage bu multidimensionnel la woon eh, Cheikh Bara Ndiaye ñoo ngi lay kontaane waat bu baax ci thème bii nga indi di ndokkeel bu baax euh, njabootu euh, maam Khalifa ñas ci seen siyaar bi ñu doon amal samedi la treize bi weesu di ndokkeel bu baax tamit yaa Sayda Fatmata Sey euh, di ko ndokkeel bu baax di ko ñaanal yàlla mook bébém yàlla sàmm leen ak borom këram ak njabootam yëpp indi mm-hmm. nga ko am solo Mm-hmm. di ndokkeel itam suñu mbokki laayeen yi ci appel bi weesu di appel woote Seydina Limaamul Mahdi bi ñu ngi ci ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla nangu ñaan yi te bu déwénee yàlla fekk mbas mi nekk lu ñuy nettali ba ñu mën koo def nañ ko daan defee mm-hmm. barkeb alxuraan barkeb rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. uh, maam Khalifa nag dafa nekk nit ku am solo ci Sénégal ndax uh, am solo li koy may nit dafa bokk ci fi ngay juddoo Mm-hmm. ak euh, acte yi nga posé ci biir askan wi. Mm-hmm. tey bu ñu waxee ne doomi soxna yi nekk Sénégal maam Khalifa ñas bu bokkul ci ñi ëpp lu mu bind ci réew mi bu dul première rek nekk deuxième maanaam ñi mm-hmm. ëpp lu mu bind ci ay téere ci Sénégal bu nekkul moom mooy première yaakaar naa ne mooy nekk numéro deuxième. kon kooku doonte al doomi Alaaji Abdoulaye la. Euh, moo njëkk nekk ab xalifa tamit ci Sénégal ndax daanaka mag ñi nga xam ne ñoo sos muy sëñ Touba ak alaaji Malick ak maam alaaji Abdoulaye Niass euh, ak ñu mel noonu moom dafa bokk ci ñi nga xam ne alaaji Abdoulaye dafay dafay jóge moom mu nekk xalifa alaaji Abdoulaye Niass euh, ginnaawam nag ci la ñoom sëñ Babacar si nekk xalifa ak ñoom Cheikh Mouhamadul Moustapha waaye daal maanaam xalifa yi xalifa yi mag ñi moom moom mooy seen seen seen taaw moo ci njëkk a nekk xalifa moo nekk numéro mhm. nekk nit koo xam ne tamit euh, ku sonn la ci xam-xam mhm. ci bind ak ci toog di ko jàngale mhm. nekkoon tamit nit ko am lijaaba ci wàllu ñaan koo xam ne tamit jamonoom nangu woon nañ ne maanaam juboo na ak boroomam loolu itam lu ko jamono nangu loon la di koo xam ne itam euh, ñi mu yar ñoo yar Seydi Lamine Niass mii doon wax ak ñun ci xam-xam bu bari ba ak fasaaxa ba kon xam nga moom bi Sidi ci doomam yu ndaw la bokk doomam yu ndaw yooyu nag maanaam kon dangay xam ne moom yaralu ko boppam waaye ñi mu yar ñoo ko yar waaye da ngay xam ne rek kon maanaam loolu ak réwe sitam la di ci siyaare euh, sëriñ arabi ñas arabi ñas ak caatu maam xalifa ñas mi man damay fàtte tur yi sama wëllëree la bu baax a baax maa ngi koy siyaare bu baax a baax daal di wax rek euh, ñëw indiwaal nga daal nit koo xam ne jàngale ko dina may nit ki mu fàttaliku ne moom ci ay askan yu baax la bokk ndax nga toog ba yàgg ñu indil la menn maam moo xam ne jàngalekat la liggéeykat la jaamukatu yàlla la ku jub la ku taxawal askan wi la dem màkka ca ba dem màkka di jafe yooyu yëpp suñ la ko fàttalee rek dafa lay yeewaat ci yow maanaam war na la kat yow dafa am noo war a mel ndax li ci sa ginnaaw dafa am nu mel kon li ci sa kanam yow yaa ko fa war a yóbbu mm-hmm. euh, loolu daal lañ ci barkeelu mais Cheikh Bara tey di nga ma may ma relancer la da doon gàttal mais ndajale mi ko série dajale nga ni ci doom yi gën a ndaw la. Mhm. mais moom moo mujj yéene ji mu amoon Cheikh moo ko dajale loolu lan la lan la loo ci jàng. waaw Sidi nag dafa nekkoon nit koo xam ne. Mm, ni ko senegal ni nga koy xamee boo nekkee benn sénégalais nii. Mhm. Euh, dafa bokkul ak ni mu mel moom. Mhm. te loolu dafa am ku ñuy wax Ibnu bi Sarno bi dafa wax nit saa yoo gisee ñett ci moom mooy ñii la bëgg. bëgg la maanaam ñi la xam bëgg la ba mënuñu laa muñ ñi la xamut bañ la ba di la dëkkal fu ne mu ne te te sa mbir maanaam ñi la bëgg ñi la bëgg dañ naan kii ku baax la ba ñemee laa takkal bépp garaatu mbaax ñi la xamut man laa bañ ba takkal la bépp garaatu ban mu ne kooku foo ko gis ci nit ñi jamono du ko fàtte maanaam kooku mooy ki ki dul dee Sidi nag dafa meloon noonu mooy ñu bari dañ koy sori defe ne sax benn benn businessman la benn tekkatu deal la. benn santaskatu état la. fekk boo ko xamee da ngay xam ne nitu yàlla la boroom kurus la borom basiira la. waaw damaa yaakaar ne téere yooyu mu doon mu doon dajale dafa bokk ci li nga xam ne ay mission la parce que tey turu maam Khalifa ñas daanaka bari na ñu ko xam ñoo xam ne ginnaaw yàlla ci Sidy Lamine la jaar. Ah, dëgg la waaw ci ci ci à groupe bi mu ko taxawal à travers tamit ni meloon di jaxasoo képp ku baax. te ñu ne kii doomu maam xalifa la waaye damaa defe ne tamit maanaam ginnaaw bu mu jaayee turu maam xalifa ba noppi maanaam noteel askan bi bu ëllëgee bu ñu bëggee xam maam xalifa ñu man a dem fekk ko ci delluwaay yu wér loolu dafa bokkoon ci li mujj lu mu waroon a defal maam xalifa te bi mu ko defee rek daanaka ñi ko jege ñëpp xam nañ ne dafa tàggatoo te it lay wax ne borom basira la Sénégal bari na ay wàll yu bari na mën nañoo wax lu nekk waaye nit ku taxaw ne bés nangam tànn naa koo dee dee loolu moom bariwul ñu ko fuñ ko gis. waaw ah, ah. bu yow da ngay gëstu ci mag ñi lu bëri bari mm-hmm. tey jii maam Khalifa Niass euh, boo xoolee wax na ci wàllu xam-xam wax ci wàllu ñàkk wax ci yonent bi ni mu doon solution pour euh, jamono. tey jii mu mel ne bu sukkandikoon ci njàngaleeb yonent bi ak ndonam yonent bi mu naam fi ñu toll ñun bay jàmbat yéen yi sax duñ ci egg. duñ ci egg ba mm-hmm. nga dëgg jërëjëf Omar bu Bun Xataab Gueye mm-hmm. ci rubrique bu am solo bi nga xam ni euh, Sénégal yëpp war di ko seetaan ba pare teg seen njaboot ndax dafa am mbokk mu ñu daan wax maxtaar soirée da doon wax ni ndaw ñi bañu ñu baax waaye dañ leen a wanoon baax euh, Fallou Cissé yàlla na ko yàlla yërëm daan wax naan euh, li réer ci senegal réere wuñ ko waaye dañu ko réeral maanaam dañu ko nëbb rubrique bii nag bokk ci li nga xam ne dafay génnewaat li nga xam ne buñ ci jëlee ay repère mën na am du ñu réer tey nag nga indi koo xam ni euh, sama góor gi sëriñ màgg daf daan wax naan doomu kilifa dafa jafe buñ nekk lu tax mu ni foo ne Sanjoogu Mbeng wala Omar bun Xataab Gay ak baax dañ naan ah, xamoo way juróom de mhm. mu ni doomu kilifa dafa jafe parce que mhm. mbaaxu doom gi day yeex a feeñ mhm. mu ni nag waaye ba mu des doom ji nar a am jom dana ca génn loolu nag dafa dal alaaji si Lamine Niass yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljanna mu indi ay point yu bari yaa ngi koy wax ci sa introduction ci fin bi ci ni mu doon dajalee li nga xam ne mooy mbindum maam xalifa Mhm. ba amoon yéene laataa mu fee jógee dajale ko mhm. nga xam dañu kuddee bàyyi mébét waaye am na mhm. mébét yoo xam ne nag waa macha allah moom bàyyiwu ko fi mu ñëw nag ci maam Khalifa ni mu amee woon vision te bokkoon na si Lamine li ko àdduna bi yëpp nangul mooy ko amoon vision la ci àddinaam ko amoon vision la waaw te mënoon a gis lu sori lool mën a gis loo xam ni ba fii dana la doy sëkk rek li ñuy dund jamono jii ba démb la ay mbokk di partage vidéo boo xam ni dafa am bëgguma tudd tur pour tooñ dafa am turu mu tudd daan ni xamoon génn ci ak euh, maanaam ayam lii dana bari te yéen a ngi koy dund ñu ngi nekk ci crise bii nga gis affaire boobu di ko gis jëhëran nga xam ni loolu vision moo koy maye. Euh, mu wax ci ni nga xam ni noonu la nag euh, waxee ci ni ñu bare ay boroomi xam-xam waaye te ñu néew lu ñuy jëfee xam-xam boobu boobule. loolu dafa bokk ci li nga xam ne bu bun Xataab bi boo dee xool. mooy li ñu faral di am fii ci victime di nekk. borom xam-xam boo xam ne koy tàntal lamp yi leer baas yi micro bi neex. mu wax lu ko neex ci kilifa yu ko neex wala ci xam bu ñu demee tuuti borom xam-xam yi xam daal di koy rectifier mu génnaat jégalu ni maa ngi jégalu fan la koy teg fu dul ni damaa gëstu damaa dégg wala dañ maa wax wala damaa déglu kaset sàngam wala dañ maa nettali kon nga xam ni kon bari na lu euh, mu ci lu mu ci lu mu ci wax mu ni nag euh, nañu wut saafara ci li xew te amul bu ñu xataat gi loolu moo fi war a bàyyi ku fi toog mm-hmm. gis nga émission bi bu dee dañuy toog ba jóg rek waxtaanee dem amul njëriñ mais lu tegee lu nekk rek war na am saafara mhm. kon jàngale dundub yonent bi alayhi salaatu wasalaam naam am na njariñ mais li ko ëpp njariñ mooy génn ay solution ci loola mhm. buñ ne yonent bi da euh, dañoo xar weer ndax moom lu tax bu ñu yonent bi dafa dañu defoon ay kéemaan ci moom dafa am ay jàngat yu ñu ci war a jàngat waaye duñ ko duñ ko bégewu mhm. di ko fettesoo ak di ko maye ji xaalis muy loo xam ni bu ci Sénégal yëpp doon def comme ni mu doon def moom rawatina di yaatal dafay am solo parce que man bokk na ci li ma njëkk a jooy fii ci euh, rubrique bi lee muy Fatoumata Seye Ndir dama ko waxoon ne ko invité bu mu amoon lan moo tax du ñu xëntewoo di génne mbindu mag ñi di ko bindaat ba am na invité bu ñu fa amoon lan moo tax du ñu génne mbindu mag ñi di ko bindaat xale yi mën ko liir lu dul rek tey dañuy bàyyi ak ay conférenciers yoo xam ne dañoo neex xel rek neex làmmiñ toog ci baas yi di ñu wax ay karaamaak ay mbir yoo xam ne kenn xamul lu mu doon mais tey maam Khalifa dafay jafe nit wax ci lu dul dëgg parce que Sidy Lamine dafa tracé lépp avant moo dem kon ma pour ma bañ a guddal ñu ngi ñaan rek yàlla <coughs> mu gëstu ba teg ko ñim fi bàyyi yàlla buñ ko réeral amiin waaw yàlla nañ ko teg te du te du réer <laughs> du réer Sa Ndiogou moom tey tey dinaa li dinaa ko tooñ tuuti nag parce que ñi ñu ma doon jokkool pour def émission pour ñu jox ma ci ay xibaar ñoom xam na nañu saa ak waajur wu góor waajuram taxawaay bu am solo da ko doon am lew na te ku nu nawoon foofu la lew na ña seet saa am na tànk lew na ña seet waaw ah ah <laughs> lu wér la sunu waa kër euh, fala ji gàmmu jee chaque mhm. euh, fala ji dem di gàmmu ji donc loolu nekk loo xamante ne bi lu am solo kóllëre gu yàgg la mhm. mais li am solo gis nga kii li nga li Sidy Lamine wax fii ci kii bi yàlla na yàlla dolli ay leer li mu wax fii ci wàllu solution nga gis ni son bu ñëw na ci eh, ñi nga xamante ni bi daanaka ñooy conférencier yi nga xamante ni bi kii parce que conférencier yi ci bëri boo seetee Ahmed Khalifa Niass foofu day am raison ci ñoom à chaque fois genn wàll gi wax dëgg fa yàlla duñu gëf waxuñu waruñoo wax mais tamit day am bu ñu waxul tamit dafay am place bu vide mm-hmm. te la nature est horreur ah, du vide à horreur du vide ah merci à horreur parce que borom xam-xam yi ñoom tamit dañ leen di seetaan rek bàyyi leen ak terrain bi mhm. ñële nag ñoom buñ ñëwee boo seetee esprit compétition sax la ñuy nekkee mhm. ci diggante këru diine yi te mbir mi du mbiru compétition mhm. donc fii si Lamine li mu wax ni li nga expliqué sànq ci solution la yonent bi war a dem mu ne xoolal mm-hmm. da gis ka nga jàpp ni moo am amut ndekete moo gën a ñàkk ñëpp <laughs> c'est extraordinaire pareensaay nga gis ni dit ki am na mais li nga koy nattee mooy lan mm-hmm. pareensaay ki ñuy natt ni am na mooy son bu yor na oto bu rafet yor na kër gu rafet yor na jabar def na lii def na ci yooyu la ñuy nattee te fekk bu nii yorut dara waaw dëgg la wala ñu ne diw xam na te fekk xamu dara mbubb ma dëgg la mbubb ma comme Cheikh Bara mu toll nii am na ñu bëri ñoo xam ne dañ ñëw ki sol grand bu xoolal keroog ba ñu toogee ci jomet sooy bu dem sol grand bu boo xam ni boo ko xoolee da ngay jàpp ni fii moo fi ëpp xam grand bi non grand bu ñëpp la sol moom moom dafa boole grand bu ñëpp mu sol <laughs> waaw mu sol mu boole grand bu ñëpp grand bu mu sol boobu sax baara bi gan demal grand bu boo xam ne daanaka ma jigéen kenn gisu ko c'est ci yooyu ci yooyu ñuy nattee nit ñi foofu la problème bi di ne mu wane ni yonent bi solution la war a nekk solution mhm. bi wax lu am solo la mhm. mooy que ni waruñu fee nekk ñu wax yonent bi rek ngay tëb di fett gëm nga yonent bi mais mhm. li nga xam ni moom la def li nga xamante ni moom la kii li tax lii am li tax lii am lan moo war a tax loolu am comprendre nga c'est que gars yi jàng nañ de mais bu fekkonte ne bi li ñu jàng ñi ngi koy lool jàpp naa ni tubaab bii ci sunu ginnaaw lay ne mais dañ fee nekk ñun ñu wax la alxuraan lépp ngi ci yow nga ne nit ci téere bi mais jéemoo xam lan la alxuraan di waxee léegi nag bu gars yi demee ba découvrir nga ne pourtant alxuraan bindoon na ko maanaam yor nga caabi ji mais mën a ubbi buntu bi loolu la te am na yu bari yoo xamante ne bi da dem ba nit ñi découvrir ñu gis ni alxuraan waxoon na mais donc nga gis ni am na blocage fu mbir yi am quoi mbir yi du neex làmmiñ ak kii kese mais il faut tamit ñuy gëstu donc te maam Khalifa ci loolu la Sid Lamine doon wax léegi solution pour l'humanité mm. mu nekk loo xam ne lu am solo la ah, ajaratu ajaratu waaw defe naa ni man li ma ci euh, yokk du bari muy loo xamante ni man sànq yaa ngi koy wax à mm-hmm. l'entame de tes propos man euh, bokk naa ci ñi nga xamante ni bu ma bu ma marqué benn attention ci euh, maam Khalifa c'est grâce à Sid Lamine Niass mm-hmm. non seulement ci bi muy dajale bind yi